doomu ndeyu Waly Ballago Seck maa ngi lay ziarati. waxal loolu ca kaw. laay Babacar maa ngi lay delloo ziar bu wér. am nga jàmm. sant naa baax a baax a baax. innovation entrepreneur. ma gis gaa yi rang di fay. pour seetaan signature contrat. ci jëmmal làmb la bokk. ci taaral lu koy jëmale kanam. ci kaw ñu yokk civisme bi rek. ndax làmb ñu koy tëgg ñi ngi jéem. mais ñu koy seetaan nañ leen dimbale. ndax yenn actes yi ku koy gis du du du du encouragé nit. tey lii xam nga ne promoteur bi mënu ci am dara. mais daf koy def ngir bëgg a wan nit ñi ne mun nañ modéré dara mun nañ gën a def loo xamante ne bi ñëpp dañ ci mën a gis seen bopp kon nag na xale yi ñëw ànd ak yar ànd ak teggin ñuy seetaan làmb yi bu baax boo gisee Papa Sow fee mu toog gisi ta fee mu toog yar yi ñuy àndal ak teggin yi da ngay xam ne ñoom ñii kuy ànd ak ñoom def safaan waat dëppoo ak ñoom liñ bëgg donc na xale yi gën a yaroo ñuy ñëw di seetaan innovation la boo xam ne làmb daf ci gën a gagné te làmb fi mu toll jàmm lañ soxla ak jéem ak promoteurs yi yokk ñu gën a tëgg làmb jëm kanam. am na loo xam ne faw ma laaj la ko parce que nee naa Kandji doomu ndeyu Waly Ballago nga ne waxal lool ca defe naa fan yi am na ñoo xam ne ñoo ko waalee nekk xam nga leen muy Amady Badiane ak Ametou caabi féet na leen ginnaaw ci lu ñu leen jàpp ne dañ koo def ci public te waruñu koo def muy fóonante ñu jégal ma ci kàddu gi ci ñaari góor yow mi nga xam ne yaak Waly ku nekk xam na leen. mbir moomu noo ko dund ak loo ciy wax. waaw muy loo xamante ne bii lu ñu metti la ñun ñëpp ndax or mi ànd gi ñu ànd man ak ñoom ci Wally Seck ay xarit lañu Amady Badiane kii ñu ko may sama cousine la sama deret la takk sama deret la takk man. Ameth tu man ak moom dañuy séq loo xamante ne du tax ay musique rawatina Wally mi nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp tax ñu boole àndandoo gis nga Sénégal il faut nit ñi am loo xam dañ koy jël bàyyi ko nit boo ko xamut da ngay yem ci li nga gis. kenn du seedeel nit loo xamut wallaahi lal azim suñu ndeyjoor yi ñun ñoo koy laloo ay Baay Faal ay góor yàlla piir ñoom ñaar ñooñu loolu ñuy wax yooyu yëpp kenn man xawma man am na yoo xam ne du ma ci dugg am na loo xam ne duñ ko cautionné parce que ñun ay jullit lañ kenn du fi cautionné ay yenn yi mais dama ne ay góor yàlla piir ay Baay Faal lañ ay góor piir ñaar ñooñu man lu ma xam laay wax waali balaa ko nag fii Sénégal lañ ne comme ni mu ko waxee ku boot bukki xaj bëw la mais li gën a am solo ci nit ñi nit ñi xam la amul solo xamal xam xam sa bopp moo am solo te xam na boppam ñun ñi ko jege xam nañ ko te xam nañ kan mooy Wally loolu rek moo am solo li des nag amul njëriñ ndax mbotti nawet yëpp ku leen tàj sa tool booy est-ce que juumuñu waaw non dañu loolu déggoo may la kenn du ko cautionné mais yow ci sa métier mi nga ne léeg-léeg nga juum sax ba def loo xam da lay wóor yaram yaramu tàng tàng nga def ko mais xam nga ne ama yor jabaram jee di fóonante ak ay góor Ameth Thiou du yor jabaram du jekk-jee te seen i jabar ak a ñoo jongoma boo ngeen gisee nga xam ne ñii dofuñu mais yéen ñi ay juum la rek ak seeram tàng rek maa ngi ñaan rek justice dëkk bi am na yoon te yoon day def liggéeyam ne erreur la dañoo juum te si ko defaat parce que amuñ ci benn intérêt wax dëgg yàlla man ak keneen kenn ku ci def nga loolu tey bu ko ne woon dàng fii mooy gën a pire loolu kon yàlla na yàlla dimbale ñun ñëpp nit ñi nekk jàmm te seede loo xam nit day wax lu mu xam di ko seede te kenn ku ci nekk looy jël di ko teg ci dara doomu aadama na nga xool est-ce que bu ko def baaba boo bëggee xew yu bëri mbooloo yére ji ngay sol di ko demee dee ko solal nit ñi waaye bu dee da ngay bëgg a sol gane laa ñi des nga solal leen ay rabal du dëgg du yoon te Sénégal looloo fi nek kenn ku ne li la yéene la ñuy wax waaye kenn du wax lii dëgg loolu lañ ko war a bàyyi ñi ñuy jiiñ ay góor jigéen duñ ay góor jigéen te séquñu ak ñoom dara nañ leen bàyyi kenn ku ci ne sa bopp doy kenn ku ci ne laay laayoo sa kenn gënuñoo bëgg réew mi kenn gënuñoo doon jullit duñ cautionné góor jigéen xalaatuñu ko sax mais ñii ñu koy wax duñu ko man maa la ko wax man kañ ndax xam naa leen ñu ko sax gisal seeni i jongo ma xool mo sama gars yi maa ngi leen di siyaar Sidi Sidi maa ngi lay siyaar maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax Sidi mbaam nga jàmm ñi ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah waaw Sidi tey su ma la laajee defe naa ne Sidi ak làmb moom defe naa du gan ndax yaakaar naa ne Sidi sénégalais la woykat la te ku la dégg ngay woy day mel ni eeru làmb moom bokk na ci li nga am. dëgg la parce que dañ ci mbapat nag dañoo dañu aw ci làmb yi aw ci mbapat yi mën naa ni <coughs> ci lañ jàngee woy quoi donc tey bu ñu ma invité ci làmb damay kontaan ndax ñun làmb la ñu am mooy suñu sport national. donc damaa ñëw fu ma neex ndax ñun man moom dama bëgg làmb man amateuru làmb laa dama bëgg làmb dama koy suivre bu baax a baax rawatina ak aussi mbëri nekk sumay xarit waaw looloo tax ma bàyyi tey pour teew ñu tuddee ko aussi sama papa Mamboy Diawo Euh, Boubacar Diallo woo ma ne ma sa papa la ñu sargal ci drapeau bi il faut nga ñëw moo tax ma taal oto bi ànd ak gars yi ñëw bégal askan wi loolu la. si di tey Siteu Papa Sow nu mu ko gisee. waa lamb ju nar a neex la ndaxte ñoom ñaar kenn ku ci nekk euh, sa gox gëm nañ la kenn ku nekk say supporters gëm nañu la donc lamb ju nar a neex la waaw Pape Abdou Fall moom juumul lamb ju nar a neex la maa ngi leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp ñu am jàmm ñu am salaam ñu am wérte tal ko te fekke ko yàlla ñëw ñu bëri ko ci jàmm mu jeex ci jàmm. que ñu xam ne tamit ndam li génnul Sénégal ñoom ñaar ñi ñooy mayante xaalis ay frère lañu. Assane Ndiaye Baol production gis naa sàng nga nga nga séen ko rek dox ñëw ci moom donte yaa ngi way dimanche bi nu jëm mu tëgg fii ci stade Iba Mar Diop le 4 drapeau ministre Matar Ba. non mais Assane sama frère la ba pare damay ñëw sax le 4 non non damay ñëw. Assane Kaay wax day tungoom dëgg wax day tungoom seede. waaw le 4 moo tëgg drapeau monsieur le ministre Matar Ba. waaw moom dama ko gëm ndax kat la xam nga li olof naa nekk xale te rew laa am jom. dama ko gëm te ku ko xamul it Sénégal dégg nga ko ci li muy ci li muy contribuer ci ci ci jeunesse Sénégal mënoon na yor xaalisam dugal ko feneen mais da koy yëkkate investir ko ci ay ndawi réewam donc ñu lay ñaanal yàlla jàmm ak man dimanche damay ñëw dimanche damay ñëw te damay play bagaat jaagu mbaas amul amul benn problème man maa ko promettre Assane nga ne doo lim ñeenti nit te limoo ko te Sénégal rëy na gëmal sa bopp wallaahil azim xoola da ngay dem yàlla mi ñu bind xam na ne man du ma xamante ku demul billaay walaay da dem da ngay bokk ci course bi force yàlla na la yàlla taxawu jàppale la ñun luñ mën rek danañ ko def pour yow pour yow wallaay la azim non xam na loolu yaa ne mbër ji yaa ne mbëroo ji bu ko saxalee fi fii day xar. damay ñëw dimanche incha allah damay ñëw <laughs> barke Serigne Saliou Mbacke laale baaxu barke alxuraanu karim damay ñëw dimanche damay ñëw ak garaaw wallaay la non parce que damay ñëw ba pare ànd ak famille bi yëpp ba pare képp kuy soppee Sidi Diop jox naa la rendez-vous dimanche ñëpp ci stade bi ñu jàngu mbaas mais mais mais am lu ma la laaj parce que tamit addina maanaam olof dane aw askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp mais boo ci gàcceelee kenn gàcceel nga ñëpp defe naa ne Wally Seck yéen a bokk milieu bi ay nitam yoo xam ne dafa am ndok ndok bu leen arrivé muy Amady ak Amet xam nga leen bu baax a baax ñooñu maanaam caabi féete leen ginnaaw loo leen di wax en tant que koo xam ne seen petit frère nga ngeen bokk milieu showbiz bi. donc yow daanaka tontu nga man en tant que seen petit frère li ma leen di ñaanal rek mooy jàmm euh, foofu ñu nekk kenn yéenewu leen fa te man ñoom ñaar euh, xam bi ma leen xam xam naa ni ay nit yu baax a euh, Ameth Thiou nit ku baax la Amady Badiane nit ku baax la dañoo am njaboot am famille donc ndok nag du wees liñ naan cat day fekk nit ba ci bàmmeel donc maa ngi leen di ñaanal yàlla foofu ñu nekk yàlla nañu yàlla nañu fa gaaw jógee te dellusiwaat ndax sénégalais nam namm nañ leen dèjà yàlla nag mooy tege nattu yàlla na leen ko teggil ci barke Seydina Mohamed si di kontaan ci kontaan naa man tamit. amal jàmm mon